mbokki Sénégal mbokki jaspora maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi suñuy kilifa diine ak suñuy kilifa aada di tàmbali di massawu sénégalais yi ci coono ak fitna bi fi nguur gi di tàggatoo teg bàyyil ñu ko moo tax kenn bëggatul dégg waxu continuité ñoom daal nañu lalli seen bagage te abal ñu te bu ñuy dem buñ fi fàtte seen candidat ndaxte sénégalais yi dañoo sonn feebar faju xewatu fi lekk ba suur jafe na njàng mi sooxe ndaw ñi di dund njàkkare ba mu jaral leen tayle seen bakkan ci géej gi jàmmi réew mi tagatembe askan wi wóolootuñu seen justice ak suñuy institution jikko yi soppeeku koom-koom gi nax saay loolu la ñun ARC alternative pour la relève citoyenne ànd ak suñu coalition la relève ak Anta Babacar fas yéene soppi indi ay xar yu bees ak i doxalin yu bees politicien professionnel yi fi nekk depuis jamonoy Senghor ñooñu la sénégalais yi bëgg a yóbbu à la retraite ay njiit yu gëm seen bopp dëggal seen bopp ay njiit yu doon seen bopp loolu la sénégalais yi bëgg waxuñu ay candidat yóbbaale ma waxuñu ay candidat par défaut yoo xamante ne fukki nit sax musuñu ko jiitee mbokki Sénégal li leen moom a metti ba 4 millions de sénégalais yi toog seen kër bañ a wote ndax wóolootuñu système bi dafa jot ñu fokkarti lu ñu moom dafa jot ñu xeex bépp xeetu guerre ak luubal dafa jot ñu jox doomi réew mi gëddëm ba mu mat sëkk te xam ne état moo war a liggéeyal askanam tappale dóor jaay doole ku wax nga tëj loolu daf fi jug dafa jot ñun ndaw ñi ñun jigéen ñi ñun liggéeykat yi ñu taxaw dëggal suñu bopp te bàyyi dénkaane suñu ëllëg ndaxte dañoo yàgg ci ay loxo yu fajul suñuy aajo mbokki Sénégal li jiitu ci sama yitte mooy teg Sénégal ci liggéey liggéey jëriñu dara dàqul am sa soxla làmb sa pos faj sa aajo man Anta Babacar li ma gëm mooy développement réew day jaar ci ñu ami usine sukkali mbay mi càmm gi napp gi tourisme ak artisanat te lal ko ci industrie transformatrice may wootee patriotisme économique ànd ak secteur privé ñu utal ndaw ñi xëy aar suñu koom-koom suñu moomeel ak suñuy ressources naturelles may wootee démocratie ak dal ci Sénégal ñu tàppe xol yi dama di doom di yaay di soxna xam nu ñuy yiiree ak nu ñuy yaree njaboot maa ngi daggaan baatu sénégalais yépp di ci jiital ndaw ñi ak sama mbokk jigéen ñi mars dina dinañu wane ne benn sër mooy ëmb fukki tubéy ak juróom-ñett te duñu nangu suñu élection bi ku ko salfaañee ensemble imposons une nouvelle ère politique car le temps de la relève est arrivé wasalaam